Le gel main Valdin, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Ah, dans notre chronique numéro 192, nous mois de novembre le mois dédié à la sensibilisation autour du diabète et plus spécifiquement le 14 novembre, journée mondiale du diabète. Qu'est-ce que le diabète de type 2 Le diabète de type 2 est, est très Euh, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang et de manière chronique, c'est-à-dire il reste élevé. Quand on est diabétique et qu'on ne prend aucune mesure diététique, le taux de sucre reste élevé euh, et ça entraîne des complications graves comme la rétinopathie, donc qui va euh, mener à la, la cécité ou à, à être aveugle, euh, ou à des maladies cardiovasculaires, des maladies du cœur, à des maladies des reins, euh, à l'AVC, etc. Et ça au fil du temps. Et quelles sont les mesures diététiques à prendre Alors ce sujet, euh, je vais me contenter de dire que le diabétique doit manger équilibré, comme tout le monde. Il peut manger toutes les familles d'aliments indispensables, Mais pour cette chronique cette semaine, je voulais surtout me focaliser sur les fausses rumeurs qui circulent sur l'alimentation du diabétique, parce que ces rumeurs font beaucoup de mal aux diabétiques. Et la semaine prochaine, je reviendrai dans le détail euh, sur comment doit se nourrir le diabétique. Quelles sont ces fausses rumeurs euh, J'en ai choisi 10, et ce sont les rumeurs les plus euh, persistantes, mais pourtant qui sont complètement fausses. Première rumeur, Euh, il faut même faire attention à la sur le moringa surconsommation de moringa, qui semble avoir des effets négatifs sur les reins. La deuxième rumeur, c'est que le jus de gombo ne réduit pas le taux de sucre dans le sang, qu'on se le dise. Troisièmement, le piment ne réduit pas le taux de sucre dans le sang. Il y a beaucoup de diabétiques qui mangent beaucoup de piment pensant que ça leur fait du bien, mais en fait, ça ne sert à rien. Le ditar, ne réduit pas le taux de sucre dans le sang, et ça c'est une rumeur que j'ai entendue récemment, mais qui fait son bonhomme de chemin. Cinquièmement, le fognon n'est pas un aliment antidiabétique. Le fognon contient autant de sucre que le riz. Pour ceux qui ne connaissent pas, le fognon, le fognon est une céréale qui est cultivée au Sénégal, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique, euh, et qui ressemble un petit peu au, au, euh, mais il doit être consommé avec modération par le diabétique, comme le diabétique doit consommer le riz et tous les autres féculents avec modération. Sixièmement, le riz local n'est pas moins sucré que le riz importé ou le riz parfumé. Le riz local contient autant de sucre que le riz euh, importé. Il doit être consommé avec modération par le diabétique. Septièmement, il n'y a aucun fruit qui est interdit aux diabétiques, même pas les dates. Euh, tous les fruits contiennent du sucre. Euh, par contre, il y a des portions à ne pas dépasser pour le diabétique. Huitièmement,

ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Valda Afrique moo leen di may mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. li ñuy waxtaanee tey ci suñu chronique numéro 192 moo di alimentation ak diabète type docteur weeru novembre bi ñu nekk moo di weer bi nga xam ne moom la ñu jagleel sensibilisation bi soxal feebaru jabet te xam nañ ne fukki fan ak ñeent moo di journée mondiale du diabète jabet de type 2 mooy lan. waaw diabète euh, doon euh, feebar boo xamante ne dafa lew ci Sénégal ak ci àddina war wërngël këpp ñu koy wax vraiment santé problème de santé publique la. Euh, benn feebar la boo xam ne ni ki ko am euh, suukar si nekk ci deretam dafay dafay yéeg te du wàccati day day yéeg rek toog foofu euh, te diabétique boo xamante ne seeti seetaatul lekkinam suukaram du wàcc bu boobaa dina am ay complication maanaam ay feebar yu yu graaw yoo xamante ne mën na sax mën na ko sax faat maanaam feebar dina am feebaru bët mën na am feebaru xol mën na am feebaru sidit feebaru neer mën na AVC eh, ak yeneen yu baree bari yoo xamante ne eh, vraiment kenn bëggul egg si foofu. kon yan mesure diététique la ñu war a jël. waaw alors sujet wu diabète ci lekkin ak diabète Euh, dama ko bëggoon euh, def ñaari pàcc euh, pour pàcc bi semaine bi li may wax rek mooy ne diabétique dafa waral lekk li ñuy wax manger équilibré maanaam lekkin bu sell comme ñëpp comme ñun ñëpp di lekkee mën na lekk lekk yëpp ñuy lekk ñu koy wax des familles d'aliments mën na ko lekk mais ci chronique bi moom dama buggoon a waxtaanee ay ay croyance maanaam ay gëm-gëm yoo xamante ne dañ koy faral di dégg ci li diabétique war a lekk ak lu mu dul war lu mu warul lekk te yooyu yëpp gëm-gëm yooyu duñu dëgg te dañuy gaañ diabétique yi parce que dañu koy topp di ko déglu di ko jëfee te baaxul Euh, bu dee bu kii semaine prochaine nag suñu chronique bi topp ci bii incha allah na dellu si ci euh, lekkinu diabétique ci te faram fàcce ko bu baax a baax. ñuy dégg ci feebaru diabète mooy yan docteur. alors naa ci bukk yi nga xamante ne moom la ñuy gën di dégg. Euh, ñu jàpp rek ñi ñu déglu jàpp ni yooyu duñu dëgg bu fekkee ni ay diabétique nañu nañu buñ koy jëfandikoo na buñ koy jëfee nañ ko bàyyi buñ ko jëfewul nañ ci bàyyi xel bi may njëkkee mooy ne nebeday du wàññi suukar ci deret en tout cas ci science firnde wuñu ko ci ci nit ci doomu aadama ma bamtu ko nebedaay du wàcce suukar et li ñu sax li ñuy soupçonné fi mu nekk nii mooy ne ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo euh, nebedaay bu bari mën na leen indil euh, gàllankoor ci wàllu roño ñu bàyyi ci xel ñaareel bi mooy ne kanja euh, am na ñu koy jël di ko di ko def jus wala di ko def ci ndox euh, daal di ko xooj ci ndox naan ndox mi euh, kanja du wàññi suukar ci deret nañ ko jàpp ñetteel bi mooy kaani du wàññi suukar ci deret am na diabétique yu bari dañuy jël di lekk fu ñuy di faral di lekk kaani parce que gëm nañu day wàcce seen seen suukar du ko wàcce ñeenteer bi mooy di tax du wàccee suukar ci deret boobu lu bees la mais ni ngi lew ci dëkk bi ñu naan di tax dañ koy jël di ko def di ko naan day wàññi day wàññi suukar en fait di sax moom euh, fruit la bu am suukar ku koy faral di naan te nekk diabétique sa suukar dina yéeg juróomeel bi mooy foño bi nga xamante ne benn pepp la bu xaw a nuroog euh, xaw a nuroog dugub euh, nga xam ne dañ koy bay Sénégal di ko bay yeneen ci yeneen dëkku Afrique yi foño du du wàññi suukar te foño aussi pepp la comme bépp pepp moom ak ceeb ñoo yem ci ñu tolloog euh, suukar donc kuy diabétique ni ngay wàññee ceeb moom nga war a wàññee foño juróom benneel bi mooy ni suñu ceebu bay bi suñu riz local bi moom ak euh, ceeb bi ñu importé ñoo yem li ñu ëmb ci suukar euh, ñoom ñaar ñoo yem képp donc ki nga xam ne dafa diabétique moom dafa war a euh, wàññi ceeb lekkum ceebam même bu dee ceebu bay bi ni muy wàññee ceeb bi ñuy importé juróom-ñaareel bi mooy amul benn fruit boo xamante ne diabétique mënu ko lekk même même tàndarma diabétique mën na ko lekk waaye nag am na ay euh, portion maanaam am na lu mu warul dépassé bu koy lekk mais amul benn fruit boo xamante ne dañu dañ ko bañal diabétique juróom-ñetteel bi mooy amul benn légume bu ñu bañal diabétique amul benn légume boo xamante ne diabétique mënu ko lekk même carotte wala betterave nga xam ne dañu boo ko lekkee ki dafay sentir cafkawu suukar si diabétique mën nañ ko lekk juróom-ñeenteel bi mooy ne diabétique mënu warul topp di naan euh, jinjeer euh, jus wu jinjeer parce que jinjeer même buñ ci dolli bu suukar wala ñu def ci suukaru jabet bi jinjeer ci boppam dafa bari suukar maanaam euh, téeméeri pàccu jinjeer bu ñu jël Euh, juróom ñaar fukki yi soixante dix pour cent yi suukar lay doon bi may mujjee rek mooy diabétique warul lekk lem parce que lem dafa doon loo xam ne comme suukar la li nekk ci suukar ci lem moo nekk ci suukar bi ñuy def ci suñuy café ak et cetera donc diabétique waru koo jël di ko lekk. kon day wane ne amul benn lekk boo xam ne ci jamono ji mën na faj lii di diabète. exactement amul benn xeetu lekk boo xam ne maanaam nit ki su ko lekkee li dafay faj jabetam wala wala wàcce suukaram loolu amul et même loolu su fekkoon ni am na diabétique bi comme ñëpp dafa war a lekk lekkin bu sell maanaam manger équilibré ngir mu am wérgu yaram. nga fàttali suñu page Facebook. suñu page Facebook yi mooy sur nutrition ñu leen di ñaaxaat rek ngeen gën a bari ñëw seet si ñu euh, ñu seen i laaj euh, bu fekkee da ngeen am ay thèmes ñu bëgg ñëw yoo leen bëgg ñu traité ci sur nutrition ngeen wax ñu ko foofu et ngeen xam ne ni suñu chronique passé yëpp mu doon audio ak vidéo bu amee vidéo ñu ngi ko posté ci page bi su nutrition. may jaajëfal Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique moo leen doon may Sud Nutrition